bu ëllëgee di nga fi jóge dëgg des fa bu konte woon ci yow ànd ak yow ci bàmbeel waaye comme ci yàlla la konte dëggay sax ba faw parce lu ne kilifa du lu mu gis dugg ca kilifa dafa am fum war a boo yëgee ni ki nga seqal du la tooñ du la tooñ ci ñi la gën a jege moom it bul ko tooñ te loo xamul bu ko attee da fay wàññi personnalité kilifa wa li moy li nga xamni mo xel li moy li nga xamni mo am gis nga en 1949 xam nga Cheikh Al Hadj mali lu mu waxon ci Serigne Babacar Sy dafa waxon ni defuma ko sama khalifa Cheikh Al Hadj Malick mu ni mat ñee ko désigné neex na ma nag parce que sama xol moom laa ko yéene te bu mag ñi tànnoon keneen duma ci mën daal moo tax sëñ Babacar si daf ñu daan sànni défi di wax ni défi bi ma leen di lancé moo di seen maam Maodo bu ma jural woon man Babacar ma doon na ko mais en la tubaab yi si wax ni xalif général Serigne Cheikh ne d'accord ci nañu dindi général ji parce que dafa am consonance euh, euh, coloniale ni nañu rek al Khalife ji maudo désigné won mu nekk fi mu ne waye bu général la jël ñep parce que vous ne da ngay bëgg un général contre quoi, wa. pour wan la ni eh, bari na lu tere nit nelaw te boo ko joxoon tey pour seddu nu ko rek ñu saaga la maam kooku amul dara loo xam ni dinañu ko ci yokk kon nag sëriñ bi eh, am na loo xam ni boo ca bokkoon tey ñu rus kon ñuy sant malikul xaqul mubin moom mi la ci génne waaw ndax it adduna gént ak calcul du ko àtte mais lu tax Cheikh Al Hadj Malick xëy suba wax mag ñi ni bu ko kenn nettalee ci gént moom Maodo pourtant nit dana gént c'est naturel mais xam nga lu taxoon Maodo wax parce que mag ñi ñoo bëggoon tënk seen wilaaye ci gént kenn ku xëy rek ni gént naa nangam gis Jibril mu nga ànd ak Mikaayil nangam nangam Cheikh Al Hadj dajale mag ñëpp ñu toog mu ni leen yéen a ngi nuy bëgg a rey ci gént yi mu ni leen te gént bu waxoon dëgg dox ba cëkk du bàyyi ba nit ñi nelaw mu di leen yéen yéen a ngi bëgg a rey nit ñi et pourtant sëriñam yonent bi yonent bi wax na ni ci mujj jamono sama xeet dinañu gàgganti ko ci gént ci gént la wax mais fi commencer ràbb géntam ca tàkkusaan waaw di nas di nocc ci fas yéene bu xëyee ni la ko tey te bu la koy wax di la xool ci biir bët di seet ndax gëm nga li mu wax wala déet mais boobu la Maodo wax ne kili mag bi ci tënku parce que ñàkk fayda la ah, ñàkk fayda la gis nga nañu yee néew yi ci bàmbeel yépp ñu dem ci aw nanu jël malaikatu rahman yi ci kaw yépp ñu dem ci gis nga xam nga ku nu yegg yàlla jeex na bu weesoo nag bàyyi buy yiw bi xamul kombin sëriñ Babacar Sy xamul kombin sëriñ Babacar Sy xamul corruption sentimentale sëriñ Babacar Sy xamul bassesse سرين بابا كرسي خمول مسكينري تكون غني كو واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ما اسك قننو حبل الله مويلا ما حبل الله ستين كورد ريد تيجي تجيلي سيولو فوكو غان ياغاي سول سجيكو خول رابو كو تي يو بو تي تيي دو باراستيكو waaye xablullahi jamian rek nga dem tëye ca glissé ba duggaat ca kàmb ga te war na am lu ñu bàyyi xel mooy Serigne Cheikh ni daf ñuy wax toujours ni bu leen wax njaboot yi leen yaakaar cër bu nekkul ci yéen ndax bis buñ ko découvrir déception ba ñuy am ni yoru leen cër ba ndeke da leen ko doon ndaxe pour ñu gëm leen mais gëm nu pour lan gëm nu pour lan waaw kër goo xam ni boo fa dikkee ka nga ni moom nga yaakaar muy moom mi toog lan na ko teree nelaw nekk taalibe sëriñ Babacar Sy sëriñ Babacar Sy nga gis ko lan na ko teree nelaw nekk taalibe Cheikh El Hadj Malick Cheikh El Hadj Malick nga gis ko lan na ko teree nelaw mooy nekk taalibe Cheikh El Hadj Omar waxuma njabootu Cheikh El Hadj Omar nekk taalibe Cheikh El Hadj Omar laa wax الشيخ الحاج عمر قدم تمو لكو يتل موي مو نك طالب السيد شيخ احمد تيجاني سيد شيخ احمد تيجاني لكو يتل موي مو نك طالب يونت يونت بي لكو يتل موي مو نك طالب يالا مي فوي ووتي فوي ووتي بس امول بلاص amul place lu amul place nag du ñu ko ko jox te itam ña nga am ñëpp nga ni leen ci kaw asamaan si ngay fana ñu jóg guddi ñëw di seet si ndax yaa ngi ci kaw asamaan si fekk ñu lay lugat ñu lay lugat pour génn la ci trou bi mais kooku yitam kenn xamul foo koy teg ah, kenn xamul foo koy teg ba tax na gis nga waxuma nit ñi mais picc yi sax seen xel ñor na waxuma nit ñi gis nga bu njëkk tool boo am mu am meññeent nga bañ picc lekk ko xam nga looy tiitale picc yi ku ñeental xam nga luy ku ñeental mooy épouvantail boo jëlee épouvantail samp ko ca biir tool ba picc mu ko seen daw xam nga lu xewle épouvantail boo samp sa biir tool bu picc ci sàccee sa tur ca kaw épouvantail ba lay tag pour lekk ko xam nga loolu mooy lan seetlu naa ba gis ni kii fiñ ko samp ci suba ba jant soo mënu fee jóg kon mënul dàq kenn ba jàpp ko picc yi xam nañ ko bu ñu lekk sàccee fruit léegi dootuñu ko lekk ci branche yi parce que branche yi amul équilibre dafay dem di dellu si waaye ci kaw ci kaw euh, kuññental bi ci lañ koy dévorer pour wan leen bi yow doomu aadama mënoo parce que li nga essayé fi nga ko samp mënoo fi bouger kon nag santal yàlla mi la bind may la meññent tama xaj ci nga bëgg a jël sama bakkan sant ko bàyyi ma ma lekk ci benn mango noonu rek la demee bu ko defee sëriñ bi yëf yàngoo et eh, li nu wax xaw na ëpp mais suñu àq la àq na ku ne yaa ko moom li nu wax it gëm nañu ko li nu wax gëm nañu ko doy na bi ci desit ànd bu ne xam nañu la ko laaj wala fi dañu wax ni ñaari bàqaar yu fanaan ci nekk cooway bari mais ngëmmentu du am parce que ku ne defe nga ni boo nelawee sa morom rendi la boobu rek sëriñ bi kon ñu ngi lay ñaanal yiw yàlla sàmm la asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu السلام عليكم تبارك الله تبارك الله ñi moom yëf yi wax nañu man nag wéttal laa rek tabarkalla dafa mel ni li ñuy tuddee المادة القطعية ولا اللي يبتدي أسلوب المقاطعة بقد في كي وخ كي تكلوي سنغم ndax yàlla deme noonu di nga wax ak ay nit ñu gën laa dégg la ngay wax loolu dafay am عامل فقه إلى من هو أفقه منها ولا رب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه نبدنا dina waar waaw moo taxoon mag ñi bari lu ñuy toroxlu cheikh alxaaj malik radiallahu taala anhu daf doon firi alquran ca ndar benn góor nga fa bu ko def morom lool def ko wujj lool talibi toge ci suuf sax moom mu jël chaise dend ak Maodo bañ na ko ba malik rek la ko daan wooye Cheikh Al Hadj Malick di firi alxuraan ba am fu mu agsi mu ni ko moo doon tekk mu ni ko li nga wax bokkul ak li ci téere bi mu ni ko kon wax ma li nekk ci téere bi mu wax ko li nekk ci téere bi ba ca kanam mu siggi ni ko xanaa tafsirul jalale mu ni ko waa mu ni ko borom dafa juum ni ko borom dafa juum mbooloo mi kenn amu fi saawi assaawi ala aljalalay ñu dal di daw dugg daw dugg génn saawi mu ni nañ ko jàng jàng ko fekk mu juumloo boroom tafsirul jalalayn moo tax Sëriñ Aline daan na wax ni nettali naa ko ba tey nee na balaa sa xol ak sa xel dal ci sa daara na fekk téere bu ñuy soow boo ko jàngee xeeb borom waxin la ba tey ñu ngi ci unicité de Dieu waaye comme uslubul muqataa dañuy dajale per yi rekk jox leen yéenay xam per bu ne ba mu war a dendal waaw naskatu caq dina ko xam waaw léeg nga gis ku sol caq nga xam ni naskatu caq piira ko ko jox ndax per bu ne ba mu war a àndal lay àndal dafay sama métier fay sama métier nit nag boo ko xasee ci métier yaa ko tooñ waaw xam per xam meloom ak nu ñu koy nase dafay sama métier kon ku ma ci xas yaa ma tooñ te itam doomu soxna ñett rek la dënnam yóoram kontaan bànkam sa dënn na fees ak leer sa yóor na fees ak xam-xam sa compte na fees ak dépense boo ko deful tooñ nga yàlla élection yi ci am boroom xam-xam bu ñoo wax Kéba Mbaye mu joxe démission benn kilifa ñëw di dal ci kawam bu demee beneen kilifa ñëw ma ne ko daje nga ak diw mu ni ma waaw ma ni ko mere na keebaa lool mu ni ma mere na ku bare ma ni ko nee na xëy na ay atam mu ni ma dëgg amul at ma ni ko yàlla it amul at kulle yawmin huwa fi shan yàlla du màggat moo ko tax a nopp siècle yi kullu yawmin huwa fi shan am programme programme ku xamagul foo jëm yaa koy am moo tax yàlla doo am programme lu ko neex rek la xam waaw lu ko neex rek la xam ndax sañ moo tax jaru caaroo ji lu ne roy ko ca gannaaw seg waaw ah, boo ko royee ci sañ muy sañ ji waaw te sañ ji mooy rëbb bi yées ci rëbb yi xale ba dafa war fasam muy fas wu rafet mu romb mag mu baax mu ni ko sa fas wi naka lëg su du mu lu ko neex def mu ni ko ndax mu wutalal la ko sant mu ni ko waaw mu ni ko lu ko naqadi dal ko mu mel ni kon nii ko ñaari sang yi waxe te ku ci ne ci ñoom waxe ko ci wóolu lu mat a bàyyi xel la ndax suñu dee gëm seen wax yàlla ak xam ni dëgg lañu wax moo tax jarbar bu ma ci denak Nimas ni mës na jembut ma wax bettaawa ko feeñal mu ne xanaa gisaane na bopp rekk du pettaaw xam-xam ba ko yenu la wante ilmul xayb moo cay àtte ak cadre bu nga xam ni wannul xayb moo cay àtte wane yonent bi ne xutbu bi ni waliyu bi lu ñu la atteel ci cadre ilmul xayb nañ la ko atteel wane gisaanekat bi ni tanikat bi seetkat bi lu ñu la atteel ci cadre wannul xayb lañu la ko atteel su ko defee nag ñun ni ndax gisaane daggan na ma ni dafa am yoo xam ni kenn du ko àttee dagan na walla daganul boo ko defee rekk gaañ nit ñi ndax ki mënula toog te gisaanewul wutul ku ko gisaaneel bu ko deful dof léegi bu ko jéem a ci dagan ak ñàkk ak bàyyi ko rekk mu dem wuti ku ko gisaaneel loolu la imaam Shafii wax maanaam nit ku dëgër ak nit ku dëgërul moo fi ne am na koo xam ni bu ñu ko téyewul rekk ñàkk ko ba moo tax am na koo xam ni bu xëyee te gisaan na luwul rekk ba ci gëm yëpp yàqu waaw kooku bu ko àtte ndax dagan na walla daganul bàyyi ko rekk mu dem ñu tanil ko moo gën wante bu dee ilmul xayb nag yonent yee ko moom ak aqtaab yi ak awliyaaw yi ndax dara du ca jaas bële léeg-léeg mu jaas waaye rekk am na ñu mu tollool la na ñu mu tollool pour wax la ni yaatal sa dënn farata la ياتل سدن فراتل ياتل سدن فراتل فوالله فوالله ما بقى البلاد بأهلها ولكن أخلاق الرجال تضيق woykat ba nee na waatal naa la ci yàlla réew tuutewu ko ba xat waaye ne jikko góor ñi nag mooy xat فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلاما لرجل هل يستويان مثلا yàlla nee na may def ñaari góor góor goo xam ne booy wax ak moom na la wóor man ngay waxal ne do am ben fitna ak gor go xamne boy wax ak mom yaa ngi wax ak jinni njuma wa dana ya xam nak bo cey tan yont yàlla yunus dafa am mbokkam président Abdou Diouf wax na ma sama mujj giseek moom mu ni ma danga may fàttali xissa yont yàlla Yunus mu ni ma baat kenn du ko appelé Allah mu ni ma baat kenn du ko appelé waaw ndax kañu ko jox bokk la kamu ko abal bopp mu ni yent yàlla yunus ba mu bëggee able baatam mu ni ca la ko jën wa wan yóbbu ko ba nii na mu gëq ko fa pour ko ni ko bokk yonent yi day yàlla xamal nañu mbiru téeméeri junne yi aadama pour wax la ni ñu bare dañuy jaawale mabdaul xalq ak mabdaul bashar wallaay wallaay te benn yonent bi nee na dundu àdduna biñ ko bindeek léegi nee benn bëccëg la waaye nee na nit kon ba takkusaan paase timis di dugg lañu ko bind waaw kon lu mu xam ci bëccëg bi yam ci kudd ñu raf la ci mbax ko bën bën bi yonent bi jaar wuy ji yàlla ci la borom sagar yi ñàkk xel di jaar pour wuy ji yàlla bën bën bi champion olympique bi jaar wuy ji boromam ci la liir bi di jaar pour wuy ji boromam mu mel ni kon nag ku yabu yem ci kur du ñu la ci bopp waaw ca jamono yële ca gannaaw tubaab yi dañ doon gas ba génne benn haykal werante ya bare lool ديني هاي كل يونت يالا نوحلا ني هاي كلو كنن لا واي كوم تقول يرا خنا ياخو كسلا خمو ني هاي كلو كارلا xamne mooy lu jar ci moom yenn yi amul amul doon fekk nag li nu fi fekk rek lan fi fekk walaw sha allahu judul jeex ah walaw sha allahu judul jeex watax ñu ni al insan مخير لا مسير

dafa néew doole te it xam-xam dafa bari ruqo